di sant bu baax directeur général Ar Rahma Lamine Fall ak collaborateur am yëpp. lii nii dafa am solo ci dëkk bi ndax comme ni ngeen ko waxee lépp lu méngoog lislaam tey jàppale waa dëkk bi dañoo war a taxaw ci loolu. man nag man maa nekk directeur général BNDE def naa fa at ak lu teg tuuti. te bi ma ñëwee li ma gën a soxal ci mbir mi mooy position bi ma am nekk euh, actionnaire majoritaire de Al Rahma nekk président du conseil d'administration mën a wax ak euh, Lamine Fall pour lancer banque bi parce que banque bi ñun ñoo ko lancé euh, lancé Al Rahma ci Touba nekk priorité bi ñu ci xalif bi joxe ndigal wante bi mu méngoog aussi suñu xalaat ci dëkk bi Daaru gi ñu ko defe nag du hasard tey boo demoon ar rahma di xool ña fa liggéey cinquante pour cent yi daar xudóos lañ dëkk kon dafa bokk ci li Serigne Cheikh bëggoon ñu am suñu diine ba pare mu mën a méngoog jamono jàng te mën a nekk ay jullit nekk ay murit yu wér jàpp naa ne lii dina ko firndeel suñu ñu ay diplôme wala jànguñu woon tey kenn du leen recruter ar rahma sëñ bi tam bi jité agence bi même chose fi le deuk momi tam jëluñu ko ndax dafa sante mbacké wala dafa deuk Daara Xudóos dafa am xam-xam am expérience ñu jël ko jàpp naa ne itam Touba ar rahma daf fi war am position bo xamné ne am duko am faneen en tout cas moy suñu mébét li tax ñu ñëk fi créer agence bi tam lool la euh, te té naa ne bu ñu liggéeyee war mën kon rafet nañ jot lool nag ci ñi fi teew tey pour doxal mébét boobu ar mën na gaaw a liggéey mën na am résultat rapidement en tout cas BNDE bi ko meññ daaw ba mu fay ñëw fekkoon naa fa ay jafe-jafe yu metti parce que dama fekk ay dossier nekk fa yu compliqué am na ñu sax ñuy wax ci euh, réseaux sociaux yooyu temps yi di ma tudd di tudd jafe-jafe yooyu mais nag ma leeral man bi may ñëw dossiers yooyu falaa leen fekk problème yi banque bi amoon dossiers yooyu ñoo ko indi li ma def yépp ci 2023 mooy fexe ba dossiers yooyu ñu réglé ko mooy bor bi ñu leboon BNDE man mësuma lebal kenn bor ku tudd Dermo wala mu tudd Xaadim Ba ci télé laa nekk ma bëgg mu leer parce que dafa am ñu ci wax fan yi ba nit ñi di ma envoyé ci réseaux sociaux yi naan ma lii nu mu demee

wax nañ ñi war càmbar banque bi càmbar nañ am nañ bénéfice wu neuf milliards presque ci benn at kon loolu ku liggéeyal du ko man def beneen bi ñu fekk capital bi onze milliards yóbbu ko cinquante deux milliards tey BNDE mooy banque bi ëpp capital ci Sénégal loolu ku xamul liggéey wala mënoo liggéey doo ko def ñu fekk total bilan bi manam banque bi 360 milliards à peu près ñu 555 milliards def 37% de glissement nekkoon 17e place ñu banque 10 première place Inch'Allah, inshallah reine def janvier février mars avril normalement pour continuer banque bi dina 5 premières banques du sénégal loolu nag liggéeyu dix ans la wala quinze ans yàlla suturaal ñu ñu def ko en une année leeral bi dafay am solo parce que am na ñu jaaxle naan ma way xawma naka kéwuloo nee na dañoo lebal xaadim ba quatre-vingt-cinq milliards Ablaye ñaan moo nekk ca banque ba Macky Sall la ko lebal lool du dëgg banque ba lebaluma kenn ku tudd Dermon wala kenn ku tudd xaadim ba problème yi ma fa fekk la régler ko ci kattanu yàlla ak yonente bi ak sëñ Touba.